Issa jërëjëf comme ni nga ko waxee sànq rek am mbégte ñu commencé le mercredi de l'arène commencé ko par la lutte traditionnelle je remercie beaucoup le comité en particulier le président bu accepté ñu commencé ko le mercredi de l'arène pour la lutte simple moo aussi initiative bi du CNG jël yaakaar naa ne président Issa wax na leen ko bugg xale yi bëre bugg amateur yi seetaan làmb parce que làmb demuñ ko jéegaane fenn ñu ñoo ko moomal suñu bopp kon ñu ñoo ko war a defaral suñu bopp loolu moo tax képp sa ku nekk fii champion commencé nga ci ay mbapat commencé nga ci lu traditionnel bi ñu commencé les mercredis de l'arène ñun ñii balaa ñu dégg roi des arènes ci la ñuy commencé di bëre dans les villages environnants di wër di bëre foofu ay mbapat c'est la lutte traditionnelle sans frappe kon mercredi aussi le CNG innovation tegal mbër yi 3 millions de francs fa pour ñu compétir le même jour wax ne aussi amateurs yi duma leen bàyyi gannaaw dama leen di yombal seen billet defal leen comme 1000 francs kon loolu day wóore ne CNG mu ngi taxaw pour jàppale amateur jàppale promoteur jàppale jàppale ñëpp ñuy yëngu ci làmb kon nag mercredi ñu ngi leen di woo yéen télévision yi yéen communicateur traditionnels yi la presque écrite ngeen ñëw mercredi seetaan si làmb ji di wax ne nag euh, Ndey Fatou Adama Jali moo koy woy ku koy tëgg mooy Maodo fay yaag Ma euh, Maodo moo koy tëgg kon ñan ñëpp xam ngeen ko yaakaar naa ne lu ñu war a def def nañ ko yéen di ngeen gisal seen bopp xam ne CNG dafa ñëw pour développer la te du ñu ñëw président Manga président Aziz hein merci président euh, Babacar Thioune Babacar Noël Ndoye Adama Bopp euh, les chers membres du bureau merci à nos invités surtout à la presse je vous rends hommage je vous rends hommage je vous rends hommage je le dis parce que vous êtes nos premiers partenaires et j'aimerais bien qu'à chaque fois pour vous positionniez en partenaire de la lutte nos premiers conseillers c'est vous parce que c'est vous qui nous donnez la réactivité dont nous avons besoin euh, nous sommes en équipe CNG en équipe Et comme M. le Président Issa l'a dit tantôt dans son propos liminaire, dans le cahier de charge il y a des missions qui sont assignées à tout un chacun. Ça, c'est son œuvre à lui, parce que en droite ligne dans sa mission en tant que vice-président, il nous l'a proposé. Nous en avons débattu en, en bureau, en structure, plusieurs fois. Et il est temps qu'aujourd'hui, qu'on lance ce produit. Et nous l'avons voulu faire avec vous, de la presse. Euh, nous sommes dans l'élaboration naturellement d'un plan stratégique, n'est-ce pas, de, de marketing. La lutte sénégalaise est un produit très vendable. Je l'avais dit quelque part ailleurs, vendable, mais pour vendre, il faut des supports. Et on est en train de travailler. Ce n'est pas encore fini, on a commencé, mais le produit là que nous avons aujourd'hui euh, n'est pas rien. C'est beaucoup de choses par rapport à notre vécu. À travers ce produit, nous allons essayer de mieux soigner l'image de la lutte sénégalaise. C'est le sport de chez nous. En la soignant, nous soignons notre culture, notre tradition et également une discipline sportive qui est pratiquée par tout le monde au Sénégal. Pas par tout le monde, mais qui est aimée quand même par tout le monde. Alors, dans le développement des stratégies d'approche attractive, le président Issandia du marketing a pensé devoir proposer et au CNG ou aux Sénégalais une charte graphique un logo. Le logo, il est bien parlant. En regardant l'image, on sent naturellement que ça, c'est une lutte africaine, une lutte sénégalaise. On veut s'identifier à ça. En que, ah, oui, nous sommes au Sénégal. Mais ça, euh, vous avez parlé de la communication, du marketing, mais vous allez donner au CNG une autre tâche trop lourde c'est la reconstitution de l'histoire de la lutte sénégalaise. Depuis des temps immémoriaux, il va falloir qu'on reconstitue tout notre passé en matière de, lutte. Parce que c'est un site Alors, c'est en fait, c'est un site qui va être alimenté et de la manière la plus franche, la plus correcte, la plus efficace et efficiente possible. Ça, ça nécessite, n'est-ce pas, de secouer un peu nos archives, de le dépoussiérer et de pouvoir mettre, n'est-ce pas, un contenu très viable. Euh, alors, il a parlé d'un concept qu'il a également développé. Ce n'est pas seulement, sur le plan numérique seulement, Il a également proposé au Comité national sur la lutte, n'est-ce pas, d'innover, d'innover en partant des mercredis de l'arène. Les mercredis de l'arène, vous savez, le mercredi, c'est le jour ouvrable. Alors, et nous, nous avions anticipé. Pourquoi Parce que vous savez, aujourd'hui, au les promoteurs ont déjà pris tous les samedis et dimanches du reste de la saison. En anticipant, nous avons dit on ne va pas les bousculer parce que nous ne sommes pas des concurrents, mais nous sommes des animateurs de la lutte. Nous sommes des gestionnaires de la lutte sénégalaise. On se propose un jour ouvrable et on fera tout pour que les Sénégalais aiment les jours ordinaires, les jours ouvrables, nest pas, pour euh, assister à, la, à, de lutte. Comme notre sport, voit, enfin, de, la lutte, je le dis souvent avec mes amis, tous les jours à la télé, vous pourquoi pas ne pas essayer de développer ces luttes-là durant les jours ouvrables. Et le CNG a préféré prendre le mercredi pour ne pas bousculer les promoteurs dans les VST. Ah, donc ça, c'était en réalité une innovation de taille que le CNG a voulu euh, mettre en pratique. Ah, je voudrais également euh, vraiment remercier nos partenaires BousPro, BousPro qui est venu pour vraiment appuyer, accompagner la lutte. Il est en train de moderniser beaucoup de choses. Le PPU, par exemple. Vous savez, la diaspora aussi, elle est, en nous et dans nous. Il faut qu'on la donne la possibilité de pouvoir suivre la lutte sénégalaise, même étant dans d'autres continents. Et remercier également euh, IGFM, TFM, donc toute la structure-là, d'avoir euh, apprécié la proposition qu'on lui a faite de venir accompagner, de venir travailler avec nous pour développer le sport de chez nous, qui est la lutte sénégalaise. Euh, on est content d'être en équipe. Si vous nous voyez, vous savez que parfois c'est comme c'est des cousins. Il y a le président Manga qui a l'honneur, l'insigne honneur de pouvoir démarrer, d'inaugurer les mercredis de l'arène avec une lutte traditionnelle. Et dès demain, alors euh, son petit frère, son frère Maïs Ndiaye aimerait bien démarrer avec. C'est pourquoi chaque fois, il se donne des pics. Mais ce qui intéresse le président de la commission des finances, M. Aziz, Aziz, Aziz Gueye, c'est de faire rentrer des sous, n'est-ce pas, dans le CNG. Vous voyez donc, il y a une synergie, nest pas, dans le groupe. Et comme c'est Issa qui développe le marketing, lui aussi, il dit voilà ce qu'il nous faut pour qu'on ait, nest pas, que tout le monde soit à, à l'aise. Donc, euh, voilà ce que je voulais dire, nest pas, en attendant. Et nous resterons naturellement ouverts, n'est-ce pas, à vous, et dire que le CNG, dans sa démarche, a décidé d'ouvrir ses portes à la presse. D'ouvrir ses portes à la presse pour informer, sensibiliser, éduquer, mais également pour communiquer. Et là, il faut que vous soyez des acteurs directs comme les autres. C'est une invite que je fais à l'endroit de la presse sénégalaise. C'est une invite. Tout ce qu'il y aura qui, devrait, qui pourrait entacher la sénégalaise, qu'on la préserve et qu'on la rende meilleure pour pouvoir mieux la présenter. Parce que nous voulons faire de ce produit-là, au-delà de la presse sportive, que ce produit-là facilite la destination sénégalaise. La presse en ligne s'impose dans le Sénégal et partout ailleurs. Hein. Ce pas ici Seulement, beaucoup de registres avec les télévisions traditionnelles. Sport, on a constaté que depuis quand même euh, pas mal d'années, les jeunes lutteurs ont du mal à trouver un, un endroit pour, euh, voilà, pour, euh, voilà, pour compétir. Parce que la lutte, c'est de la compétition aussi. Donc je pense que ça donne une opportunité à tous ces jeunes lutteurs qui ont faim de victoire qui, ont fait, qui, qui veulent pratiquer leur sport, de, de, de s'illustrer et de se montrer devant, tous les Sénégalais. Donc c'est un projet qui, qui, vient à son heure. Et cette nouvelle démarche de ce, de ce CNG, New Look, vraiment nous rassure et nous promet beaucoup de, de belles choses. Ah, c'est essayer de faire de sorte que euh, tous les téléspectateurs du Sénégal et d'ailleurs puisse quand même euh, suivre ces combats en direct au niveau de la télé et faire la promotion de la lutte qui est notre sport national. Donc on est très de ce, de ce partenariat et on a hâte qu'on qu commence. Mhm. Euh, en fait, c'est une, opportunité aussi pour le groupe Futur Média de se positionner sur la lutte, sur l'avenir de la lutte. Parce qu'en fait, les, proches, les, les, les champions de demain, c'est aujourd'hui qu'ils vont se dessiner et par rapport à ce, à ce, ce nouveau concept, ils vont s'illustrer, on va voir de, de, nouveaux talents, des jeunes qui, ont, qui, vont se montrer. Donc je pense que c'est une opportunité aussi pour la télé et le CNG a fait, je pense, le bon choix parce que quoi qu'on puisse dire, tout le monde euh, connaît la, la capacité de, de, de voilà la, la position du, du, du, groupe Futur Média dans le milieu médiatique euh, sénégalais. On est quand même le groupe leader au Sénégal, donc c'est pas c'est pas un choix fortuit. parce pense que euh, on, euh, on est une bonne télé, un bon partenaire et on ne va pas décevoir. Je pense que ce projet la entre le CNG et, et le groupe Futur Média va être apprécié par tous les tous les Sénégalais. di di di bëgg ci partenariat bi parce que xaaruñu woon leneen. lu gën a tuuti ci ci CNG bi parce que bi CNG bi ñëwee doon nañu xaar aussi ñu indi ay ay idées yu bees innové et je pense que euh, concept bi concept bi am solo parce que dafay permettre euh, lutteurs yi nga xam ne ay xale lañu ñi ngi entrainer depuis des années ñu mën a aussi quand même compétir parce que lu ñu mënti wax làmb culture am na si mais avant tout c'est du sport te sport moom su fekkee ni amuloo opportunité di ko pratiquer ça ne à rien di di di liggéey di entraîner suba ngoon di xaar sa sa dimanche wala sa tàkku sant doo ko gis donc ça permet à la lutte mu dundaat ñu aussi mën a suivre yenn jeunes yi seen assendance fu ñuy commencé ba fi suñuy fi ñuy évoluer donc vraiment projet bu ma neex la parce que euh, ku xam làmb mooy suñu sport national donc tey jii su ñu amee opportunité ñun ñi nga xam ne ñun ñooy GFM nekk quand même le premier groupe de presse du Sénégal ànd ak CNG pour liggéey pour vulgariser làmb mu wër àddina ñu mën ko ndamoo donc je pense que lii opportunité mënu ko gën a rey et vraiment kontaan nañu wa waaw suñu liggéey si partenariat mooy fexe ba nga xam ne làmb ji gën a duggaat ci kër yëpp ñu bañ a toog rek di xaar grand combat kañ lay am ñii trois mois duñu gis ay combat donc dañu bëgg chaque semaine toutes les semaines comme ni ko Japon amee semu di koy di ko di ko di ko si moo xaw ma semu di ko di ko di ko di ko gis tous les jours américain am baseball di ko seetaan tous les jours français anglais am football di ko seetaan tous les jours ñun ñu am làmb gars di ko mën a seetaan tous les jours donc loolu ñun en tant que sénégalais suñu responsabilité la ñu ñu ñu fexe ba nga xam ne làmb ji dafa gën a fës xale yi nga xam ne dañu bàyyi seen lépp consacré wu si si sport national muy làmb ñoom aussi ñu mën a am benn espace d'expression je pense que loolu lu am solo la man li ma lay laaj mooy tey dafa naa ne bu ñu leen gisee ci lu mel nii yéen waa groupe Futur Média partenaire ak CNC te lu jiitu la ngeen doon tëgg ay làmba tëggun fi Eumeu seen ak Balla Gaye ñu gisaat ngeen ñëwaat leen indiwaat beneen grand combat bu mag a mag muy guy gi ak rëg-rëg mu mel ni kon groupe Futur Média dafa mel ni daal bëggul kenn dem bàyyi ko ci làmb waaw làmb moom laa lay wax ni ku xam ki sañ ci kër gi xam que ni moom lépp li nga xam ne image yu Sénégal la daf daf ko ñor donc ni bëri na ay combat am na structure bu bees bu mu teg c'est pas parce que daf ci bëgg a gañ xaalis mais pour moom devoir la làmb ji mu gis que ni sooxe na mu ne xaar ma dugal ci kii au lieu di nekk télé rek buy diffuser ñu aussi jàpp si ay euh, di taxawal ay combat euh, c'est pas pour concurrencer kenn mais c'est pour aussi fexe ba nga xam ne mu gën a yaatu donc je pense que projet bi dafay yaatal donc euh, mu nekk suñu responsable ñun ñooy seetu Sénégal te seetu Sénégal làmb moom boo ko ci dindee defe dara du ci des donc waaw donc làmb dafa am solo te dañu war a am fierté di ci liggéey di ko porté pour que ñi nga xam ne ñoo nekk extérieur sax mën a gis suñu sport national bu rafet bi nga xam ne mooy làmb. pare ngeen ngir yeneen bés wala yeneen affiche yoo xam ne di ngeen ko taxawal à part guy gi ak rëg-rëg non non bien sûr loolu da ngay laaj Maawo Cissé je pense am na yu yu mu signé denc ko ci tiroir bi ah. Ah, waaw waaw ñun yow tam xam nga déggoo man la affaire bi dañ ci war a taxaw te ñu ngi ciy taxaw ku def ñu def ku deful ñu def waaw ah, ci ci suñu ci suñu kéemtalaay kàttan kenn nag xamul ëllëg mais je pense que tout dépend de de fois aussi de yenn yenn événement yi mën na dajeek benn événement bu mag ñu ñu décaler ko mais suñu kéemtalaay kàttan li am solo ba am solo mooy que nit ñi di gis làmb tout le temps looloo am solo bañ a xaar rek tous les trois mois kañ lañ fi gëj di seetaan làmb yàgg na te loolu du yoon du yoon te football chaque semaine mu am waaw donc ñi ngi dem ni seetaani ko Ligue des champions dañu war a dem seetaani làmb gars yi jaajëf kontaan <laughs>